parce que dama baax nag trop mais euh, bu liggéey jotee dañuy liggéey waaw parce que dama baax nag trop mais euh, bu liggéey jotee dañuy liggéey soxna Aida soo bee coupé xam nga euh, waaw nit ñi man Sénégal yëpp samay doom lañ man Sénégal sama Sénégal la maa ko moom koo xam ne bu Sénégal taxawee nga génn ay millions def ko ci Sénégal bu jàpp bu tamxarit jotee nga génn ay millions def ko ci Sénégal. bu Sénégal lu ne ci Sénégal rek soxna Aida taxaw na comme en tant que sénégalais. moo tax am na yenn détails yoo xam ne sénégalais bu demee ba di ko détail war nga xam ne yow da ngay wax sa bopp tontuwaat sa bopp. parce que man ak soxna Aida ooma ay caaxaan ci leen parce que li may def dafa wóor fi ma ko teg dafa leer. man ñaanuma ñaanuma Sénégal dara. lu ma war a am Serigne Touba defal na ma ko. lu ma war a am Serigne Saliou defal na ma ko. gars yi kër yi ci soxna Aida ràññe naa Sénégal. melum soxna Aida. mooy génn Sénégal lu ñëwagul lu des un an. wala lu war a am deux mille vingt et un sunu borom man la ko may man bi ma bi ma juddoo bi daf ma faa teg daw de. Uh-huh. man bi ma juddoo damaa ànd ak bur wi imaam bi ma doon tudd daf ma faa teg daw. waaw avion yee daanu. man damaa judd indaale jàngiwu ma defu ma dara. damaa indaale li may indaale man suma ma la. mais soxna nag man war nga maa seetaan nag de non yow seetaan naa la bu yàgg Adamo ah waaw ah kon de war ga maa wax sama samay eh, samay kii temps yi moom weeru safar jot na te yaa ngi safar yow yaa ngi safar waaw safar gi moom ñu ngi safar yaa parce que li nga def ci weer yi safar la waaw li nga defal Pambay loolu safar gënu koo rëy am na yeneen waaw ak yeneen ak yeneen lu ñu yëg ak Fambay dafa kontaan de dafa kontaan meer Fambay xaaral Fambay soxna Ayda soo bee coupé xam nga euh, waaw nit ñi man Sénégal yëpp samay doom lañ man Sénégal sama Sénégal la maa ko moom euh, koo xam ne bu Sénégal taxawee nga génn ay millions def ko ci Sénégal bu jàpp bu tam xarit jotee nga génn ay millions def ko ci Sénégal bu Sénégal lu ne ci Sénégal rek soxna Ayda taxaw na comme en tant que sénégalais moo tax am na yenn détails yoo xam ne sénégalais bu demee ba di ko détail war nga xam ne yow da ngay wax sa bopp tontuwaat sa bopp parce que man ak soxna Aida ooma ay caaxaan ci lenn parce que li may def dafa wóor fi ma ko teg dafa leer man ñaanuma ñaanuma Sénégal dara lu ma war a am Serigne Touba defal na ma ko lu ma am Serigne Saliou defal na ma ko gars yi kër yi ci soxna Aida ràññe naa Sénégal mennum mooy génn Sénégal lu ñëwagul lu des un an wala lu war a am deux mille vingt et un man la ko may man bi ma bi ma juddoo imaam bi daf ma faa teg daw de uh-huh. man bi ma juddoo damaa ànd ak bur i imaam bi ma doon tudd daf ma faa teg daw waaw avion yee daanu man damaa judd indaale jàngiwu ma defuma dara damaa indaale li may indaale man su ma la mais soxna Ayda nag man man war nga maa seetaan nag de non yow seetaan naa la bu yàgg Adamo ah waaw ah kon de war nga maa sama eh, samay kii temps yi nga weeru safar jot na te yaa ngi safar yow yaa safar waaw safar gi moom ñu ngi safar parce que li nga def ci weer yëpp safar la waaw li nga defal Paa Mbaye loolu safar gënu koo rëy am na yeneen waaw ak yeneen ak yeneen lu ñu yëg Paa dafa kontaan de dafa kontaan meer Paa Mbaye xaaral xam ne mi ngi metti wala am na loo xam koy yëg yéem na la. waaw comme ndagam mu ngi tal ba di ko nettali na sant te yal na yàlla xeeb doole te suñu borom da koy yëkkati. dëgg la parce que li may wax rek. li ko faramaareen bi def bu amee ñett ñu ko. mais gis nga Fambaye ñëpp bu ma nee na faramaareen bi Sénégal day baax bu ceebut diis. Mhm. mbégte mi moo diis mais yàlla na ko yàlla fay yàlla jàppale ko. bu noppi ci mbiram mbiram bu ci noppi. parce que Sénégal lay bàyyi xel mel ne Faramari bi fii lii day baax. Sénégal comme ni Faramari bi non kaay ma leen nag Adamo. waaw. maa lay xamal leen de. waaw du bëgg cuune du bëgg yambaar. waaw dégg nga loolu dégg bëgg cuune du bëgg cuune du bëgg yambaar du ma bëgg ku baaxul du ma bëgg ku rafetul xol du ma bëgg koo xam ne doo bàyyi faal lim boole moo bari lim boole uh-huh. ku mu nekk ci yow mën nga nekk sax wàlli wala xub samaan waaw nee naa la picc mi bu demul woon Guinée waa Guinée du ñu am coup d'état kese de dañuy am coup de ak ñaf billaahi dëgg nga wax de picc mee tax ba mu mal noonu dal noonu parce que suñu borom moom mooy jagle nit te képp ku mu jagle bu nu xeeb li mu ko jagleel waaw dëgg la de waaw soxna Ayda yal na yàlla guddal fanam rek faramarin ma ma daal kontaan naa ci yow yàlla jàppale ko yàlla bàyyi ko li ma bëgg daal mooy soxna Ayda damaa bëgg say numéro yëpp am ko damaa bëgg say numéro yëpp am ko bi ngay liggéeyee nga xam ne gars yi dañ lay mën a woo di laaj produit yi dañ ci jot waaw soxna Ayda maa ngi koy dugal léegi ci direct waaw léegi xoolal da nga koy dugal léegi bu ko defee di ji gis la parce que am na ñoo xam ne soxla nañ ko am na. loo xam ne mi ngi lay metti wala na yaa ngi koy yëg yéem na la. waaw comme ndagam ngi tàll di ko nee tàlli na sant te yal na yàlla xeeb doole te suñu borom da koy yëkkati. dëgg la parce que li may wax rek. li ko faramaareen bi def boo amee ñett ñu ko. mais gis nga Fambaye ñëpp bu ma nee na faramaareen bi Sénégal day baax bu ceebut diis. Mm-hmm. mbégte mi moo diis mais yàlla ko yàlla a yàlla jàppale ko. bul noppi bu ci noppi. parce que Sénégal lay bi fii lii day baax. Sénégal comme ni faramaarin bi non kaay ma wax la leen waaw. maa lay xamal leen de. waaw ma bëgg cuune du ma bëgg yambar. waaw dégg nga loolu dégg nga soxna Aida. du ma bëgg cuune du ma bëgg cuune du ma bëgg yambar du ma bëgg ku baaxul du ma bëgg ku rafetul xol du ma bëgg koo xam ne doo bàyyi faal lim boole moo bari lim boole ku mu nekk ci yow mën nga nekk sax wàlli wala xubu samaan waaw nee naa la picc mi bu demul woon Guinée waa Guinée du ñu am coup d'état kese de dañuy am coup de ak ñaf billaahi dëgg ga wax de picc tax ba mu mal noonu dal noonu parce que suñu borom moom mooy jagle nit te képp ku mu jagle bu nu xeeb li mu ko jagleel waaw waaw. soxna Aida yal na yàlla guddal fanam rek faramarin ma ma daal kontaan naa ci yow yàlla jàppale ko yàlla bàyyi ko li ma bëgg daal mooy soxna Aida damaa bëgg say numéro yëpp am ko damaa bëgg say numéro yëpp am ko bi ngay liggéeyee nga xam ne gars yi dañ lay mën a woo di laaj produit yi dañ ci jot waaw soxna Aida maa ngi koy dugal léegi ci direct waaw léegi xoolal da koy dugal léegi bu ko defee nit ñi gis ne que am na ñoo xam soxla nañ ko am na